jenn soxna su mag mi ngi doon nettali ni amoon na ñetti doom yu góor kenn ku ci nekk mu ngi denc soxnaam mu am yéene seeti doom ju mag ja am ak moom ay fan bam fa fanaanee ba suba mu laaj soxnaam ndox mu mu jàppoo ngir waajal julli ba mu jullee ba noppi mu jël la desoon ca ndox ma tuur ko ca lal ba soxna sa di ko indil ndekki mu ni ko maa ngi sama dom, ndax biig ci guddi gaanuwaay naa ci lal bi waaye nag dug tayef xanaa li ma doon mag rekk la soxna sa mer yuuxu ko gëdd ko toroxal ko ni ko li nga def bu ko dolliwaat mukk na nga fexe ba lal bi ko def na mu meloon fóotal darab bi ba mu set lalaat ko ci soxna sa jël darab ba fóot ko weer ko ba mu wow lalaat ko ca lal ba def ko nam meloon waaye nag xëy dem seeti jeneen doom ja ca topp ak soxnaam yóbbul leen kado mu fanaan fa defaat la mu defoon ca doom ju njëkk ja waaye soxnaam siit yuuxu waat ko gëdd ko toroxal ko ci kanamu jëkkëram waaye jëkkër ja waxut ko dara mu lalaat lal ba defaraat ko waaye xëy dem seeti jeneen doomam ju ndaw ja yóbbu leen kado moom mu fanaan fa waaye nag defaat la mu ca ñaari doom bu njëkk ya bi mu xëyee nag mu wax soxnaam si ni ko ah sama doom maa ngi jéggalukat biig ci guddi gaanuwaay naa ci lal bi dug tayeef nag soxna si ni ko yaay booy loolu du dara amul benn solo ndax ñun ñii di seeni doom yàgg nañoo gaanuwaay ci seen kaw ngeen ñuy defar te du ngeen ñu wax dara kon toogal ma lal bi nga waat soxna sa lal bi ba mu jekk ni ko yaay booy noppalul soxna su si ni ko nag dama yor alal ju bari lool bëggoon koo jënde woor am ku ma ko jox ci samay soxnay doom waaye xam naa yaa ko mérito ci la xëy dem marché jël alal ji mu yoroon yépp jëndee ko woor daldi ñëw ca kër ga dajalewaat ay doomam ak seeni soxna xamal leen ni la ma daan def ca seen lal ba du gaanuwaay waaye nag ndox rekk laa fa daan tuur ndax mage naa te yor naa alal ju bari ma bëggoon a jënd alal ji yépp or jox ko ki ma gën a bëgg ci samay soxnay doom kon jox naa ko ku ndaw kii li des ci sama dund nag moom laa koy paaseel ndax mu am sama mànde ñaari soxna nag réccu di jooy fekk nag réccu dafay fekk jëf wees kon yéen samay mbokki yu jigéen yii di sëy am leen mànde ci seen yaayi jëkkër comme ni ngeen bëggee ñu am yërmande ci seen yaay te bu leen fàtte ni ko def lo bax am lo bax lool ko def safaan nak am safaan من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون